Rewmi 24 TV fan nañu leen bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bi di réew mi 24 tv li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañu koy doo rek ministre bi nga xamante ni rek moom la ñu dénk wàllum environnement ak lépp loo xamante ne rek ndox la ak mbay mu nga nag ci royaume bu arabie saoudite moom ci jëmi bopp rek jot naa jot ab audience boo xamante ne rek ci teewaayu natangoom boobu nag di natango sénégalaise ki nga xamante ne rek moom mooy directeur Maboubu Diagne moom ci jëmi boppam rek ak premier ministre bi di Ousmane Sonko ñuy jot boobu boobule audience bu ñu jugee foofu nag dañuy àddu rek wutali diwaan bu wal fajri nga xamante ni rek boobule télé nag dina waajal def lii di ab programme am niki alxames bu 20h jotee moom wal Walf TV ma ngay daal di xam ne rek ne dinañ dooraat nag programme am niki alxames bu vingt heures jotee Walf nag mu ngay jëfal bu baax ñi nga xamante ne daal dinañ jàpp jaarale ko nag ci Copa Express ba sauver Walfadjri mi nga xamante ne rek ay fan ci ginnaaw doon na lakk mu nekk nag télévision boo xamante ne rek moom la ñu dippee la voix des sans voix dina dooraat ay activité am nag niki niki alxames bu vingt heures jotee jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am